par boo da ngay dégg ñaan dégg naa sa El Malick Ndiaye euh, ci benn kàddu euh, ci euh, te kii bi xaw ma accident bi am non man dama ko seetaan rek El la Ndiaye dama rus. mu daat ni. Mm. am na benn waaye xaw ma xaritam la xaw ma bu ko envoyé ab benn vidéo comme façon ni premier ministre am di waxee rek bu ko envoyé vidéo xam naa ab policier moo ko filmé. te dinaa wax vidéo boobu kañ la nee na bi mu ko filmé daan ni walla ñu wane ay siège kaw si siège kaw si yu xale yi. moom la nee na bis moom la ñu yor ci ëllëg ñu def Versailles loolu la ñuy teg bu ñu yabee nit ñi teg leen ci ñu toog siège kaw si yooyu noonu. léegi may wax El Malick Ndiaye ministre des transport loolu nga wax amul. vidéo boobu ci jamonoy Macky Sall la lancé naa kii konk vidéo boobu policier bi euh, euh, nekk ci kii bi di di di installé vidéo boobu ci jamonoy Macky Sall la man xam nga ne yàgg naa ci réseaux sociaux du ci gan vidéo boobu buñ ma jaar rek mën naa la vidéo bi kañ la vidéo boobu jamonoy Macky Sall la moom ci la jaar xam naa ñu envoyé ko mu nekk euh, kii rek ku comprendre rien mu taxaw di def discours daal ni envoyé nañ ma vidéo daan ni transport bi léegi bus yi dañuy jël ay ay ay siisu kaw su plastique di jël di teg di teg euh, pour ay clients di ci toog ñu éliminer Versailles bi moom la ñuy remplacer Versailles bu oto bi mbë mbëkkee freiné rek yéen ñëpp da ngeen dem loolu ba ko Macky Sall waxee yàgg na. El Malick Ndiaye xam nga lan moo war nekk li nga xam ni muy muy muy muy cërëm mu démissionné bàyyi ministère de transport mënul xamul daa tële. doomu jolof la nag te doomu jolof lay diiñ. d'accord da ngay melal ne Aly Ngouille Ndiaye. soo mënul dangay bàyyi. ma ñëwaat ci